بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عونك يا معين بك نستعين بك جلدي بك طالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu xaq di ñaanal Cheikh Muhammadul Muntaqa sunu boroom yàggal ko fi te wéral ko ba naal yi mu naalal lislaam yépp mu àggale ko di ko ñaanal mbooleem njabootu Cheikhul Xadim gi ak mbooleem kilifa diine yépp di nuyu kilifa yu baax yu tedd yi nga xam ne ñu ngi ci jataay bi tàmbalee suñu nuyoo ci sëriñ Cheikh ummi moom Cheikh Mamadul Fadal xaadimu rasul sëriñ bi noo ngi lay nuyu noo ngi lay ziyaara noo ngi lay ñaanal yàlla sunu boroom yàggal la fi te wéral la te defal la sa bëgg te yàggal say kilifa ci sa kanam ba li nga yéene lépp nga defe ko ni nga ko bëggee kilifa gu baax kilifa gu woyof gu bëgg sëriñ Tuubaa te biir di nuyu Serigne Cheikh Jorel di ko ziyaare bu baax ci bis bii di ko ci ndokkeel ñaan yàlla sunu boroom jataayam bi nga xam ne dafay wuutu mag ña waaye dundalaat béréb bi ànd kook njaboot gi yal na yàlla dëgëral ko te guddal fanam te wéral ko ba lépp loo xam ne sëriñ bi waajaloon na ko ci béréb bi mu fekke ko Serigne Cheikh kilifa gu baax kilifa gu wayeef gu laabiir goo xam ne boo nekkee ci jataayu Serigne Touba yi sax waxtu wu ne yaa ngi jot ay bataaxalam di jot ay wooteem ngir di la soññi ak di la ñaanal di nuyu njaboot gi Cheikh Mamadou Lamine Serigne Baara ñoo ngi lay nuyu bu baax waaye it njaboot gi nga xam ne ñoo yor liggéey bi mën na ma wax sëriñ Galas ak sëñ Modou sëriñ Cheikh. ak sëriñ Cheikh Coroog ñi ko seqal ñoom ñëpp sëriñ maam Thierno noo ngi leen di nuyu ñu jàllaleel na ko ci ñi nu seqal liggéey bi kilifa yu baax yi fi nekk sëñ Abdourahmane Niang noo ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara bu baax ak mbooleem kilifa yu baax yi fi nekk sëriñ Amidou Diop jërëjëf noo ngi lay jaajëfal bu baax ci kàddu yi ndax nit ki moom li nga koy jàppe mooy bëgg sëriñ bi rek. te loolu mooy li ñu seetlu loolu mooy li ñu gis Euh, jërëjëf kon sëriñ Amidou laa doon wax noo ngi sant bu baax di la jaajëfal euh, ci sa taxawaay waaye ci sa bëgg sëriñ bi ak sa yitte yow suñu wëllëre nga suñu xarit nga te sa jikko rek moo ko sabab di sant yàlla borom bi subhaanahu wa nu mayaat nu fekkee bis bu màgg bii ni ko sëriñ Amidou waxee xam naa ab tomb lay doon walla aslëf lu ñuy jël rekk ngir jataay bi ni mu demee ak jataayu kilifa yi teew waaye ñu nafar ci loo xam ne dana mën a nekk ab yóbbal waaye nafar ci loo xam ne dana nu fàttali bis bi ak dayo bu rëy bi ko yàlla jox moo tax lii nu tànn war koo waxtaane muy yoonu géej gi yoonu géej gi buñ ko waxee ta tok fi tay ci mbacke Bari loolu da fay ni kon bereb bi wax ji ak jëf ci dafa depo ak bereb bi tawfiq la nak Serigne Touba bereb bu mu waje waye tawfiq la yit Serigne Touba bereb bu mu wacc ta tawfiq ji mbacke Bari am ta damay wax ni tay ji bis la bo xamne ne yeb ño waron di tante wër mbacke Bari ci ay xayma ci ay mbaar ci ay kër ak lu ne ngir bu ñu fàttalikoo 10 août 1895 ñu ne mooy bis bi sañ Touba génnewoon ci këram Mbakke yi te mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ni nu koy màggalee di ko dundal ci waxtu wu nekk damay wax ne bu ñuy dundal safar safar yaat yooyu fii la war a tàmbalee muy Mbakke Bari béréb la boo xam ne ku fi teg sa tànk rek dana am loo yëg dana amit loo xalam. kon ku fi waxtaanee fàttaliku loolu lay jàngale liggéey bi sëriñ bi doon liggéey te ñu koy tuddee tukkib géej gi mooy liggéey bi mu doon liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa ndax dafa wax ne yitteem jëpp mooy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa fànn yu bari la ko doon liggéeyale di ko tagg di julli ci moom di yar aw nit di leen defar di yeesal diine waaye am ci jëf joo xam ne nag mooy liggéey bi mu doon liggéeyee li ca tukki ba te waajal ko wàccaayam wu dëgër woowu mu am ñaari sabab am sababu zaahir am sababu baatin te mooy ku ne xam na ne saayir si mooy jëmmi nasaraan bi bi ñu ñëwee ci aweef muy Afrique occidentale française booba noonu la tudd fassiyene andi indiwaale ay mbir moy ñëw not nit ñi fi nek changer sen culture soppi sen diine yobul len ci yenen melokaan yor nak ñaari gànnaay muy alal jo xamné dañ la koy xep wala katan go xamné dañ la cay xup moy kon ñaar lañu yoron muy xep ak xup ku ne xamné na it tubaab bi bu fekkone ne bëgg suuf rekk wala bëgg nguur rek moo ko taxoon a jóg kon bu dajeeg buur yi xeex ak ñoom du xeex ak sëriñ si bu fekkoon na it jële fi lislaam képp te bañ a indi ak noteel moo ko yitteel bu xeexee ak sëriñ si it du xeex ak wóor yi kon ñaari pouvoir yi fi nekkoon yépp muy temporel ak spirituel tubaab bi jàmmaarloo ak ñoom defe naa kuy gëstu ci histoire da nga dégg ñu ne sëriñ diw nangam sëriñ diw nangam sëriñ diw nangam waaye kuy gëstu ci histoire it da nga dégg ñu ne buur sangam dameel sangam teeñ sangam barak sangam nangam nangam tubaab bi jàmmaarloo na ak ñoom kon day mel ni ñaar ñëpp lañu ñu nañu jàmmaar loolool loolu nag bañ ko defee ba agsi ci atum 1895 te faagaagal lu bari ci ay wóor faagaagal lu bari ci ay sëriñ kañ dajeel war a moom moo tudd ci Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul loolu nag bu dee saayir si baatin bi it mooy borom bi subhaanahu wa moo namm ci sëriñ Touba ñetti mbir ba ca jëkk mooy mu am ci yàlla daraja ju kawe ba ca topp mooy mu ràmm aw xeetam ba ca toppit mu nekk Xaadimu Rasuul di yurub jamono kon loolu day mel ni bu dee saayir si moom loolu lay tekki waaye baatin bi liggéey la bu mu daalee digganteem ak boromam. ta loolu defena ku xol khalwa bi seigne touba mujj dugg ci jàkkay darul xudus nga xamne ne waxal bopam ci boppam ca awwalu mabtad bi khadim ta'alluq liman lahu taqdim wa azhara al xidmata aama jaysasin wa xalbuhu admaraha min asasin munsaliqan fi jayshin min ghayr rabbil wara khadim usnil khair kon sëriñ bi ci bopam bamu joge ci ci njëlbeenam ci atum jaysas dafa jaayante rékkiku ci lépp jox boppam yàlla daf yonent bi muy wasila loola it ba mu amee lu mu yéene woon la ci xolam ci ësës waaye kon ci jëysës la ko taxawee rékkiku ci lépp lu dul borom bi rékkiku ci lépp lu dul yonent bi salaahu salaam dox ci dox yi nu mat woowu loolu moo waral keroog bi mu signé contrat boobu te jaayante jaayanteem gu dëgër ga valaltu aabidan qadiman li rasul min aami aysasin ila aami rahil nga xam ne 1311 mu gañaayu takku na fas yéene naa ba ba may laxas ñu noppi maa gis ci zahir dutuma tekkeet sama laxasaay ci liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wasallam loola it ku xool suwaalu bay sës te mooy teg atum bay sës di 1312 mooy kori gi sëñ Tuubaa mujj a wari Tuubaa nga xam ne ba mu ko waree rek la daal laxas te loolu mois de mars lay war a dajeel nga xam ne man nga ne 29 mars lay lay lay lay jógee Touba ñëw Mbacke Bari loolu it la muy tegtale mooy ginnaaw ba mu jotee ndigal lu bàyyi ko ci boromam jàll ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam tam xemmee ma bokk ca gaañam ña koy liggéeyal ëllëg keroog bañ joxee Serigne Touba ndigal li dañ ko ca tegal ay conditions conditions yi mooy bokk na ci ca dëkk bii di tuuba yàlla lakkal na la ko aaral na la ko sàmmal na la ko. benn natt du la fi nekk benn balaa du la fekk kon sëñ bi moom moo tànnal boppam Mbàkke Baari xam ne suuf si dana ko attan xam ne lim bëggit dana ko fi man mu jógeel boppam Tuubaa booba fekk na ñenn ci uur bu njëkk ba wàcc waaye ñu toll ci jàng alxuraan toll ci jàng ci xam-xam beneen arrivage bi ndax 90 91 ñenn ñu jëkk ña wàcc nañ mu daal di ñëwaat nag xam bi muy ñëw kon day indaale ñu toll ci jàng alxuraan ñu toll ci jàng xam-xam ñu ne ci daari tërbiya mu bàyyi sëriñ bu sa Tuuba ne ko nag bu kenn romb Tuuba ñëw fi man te jaarut fi yow ba xam war naa ak seen déet indaale sëñ Dame Abdourahman Lo ngir daaray alxuraan maam Cerno ngir daaray xam-xam ak mbooloo mu bari mu ñëwal boppam ci dëkk bi 29 mars bi mu ñëwee dëkk bii di Mbàkke Bari sanc fi moom sëriñ Tuuba dëkk bu sëñ Tuuba sanc la mu fay jëkk def mooy jàkk balaa wut néegu boppam néegub yàlla la fay jëkkëre ba nopp tey jàkk jaa ngi nii ci penc mi wut jàkkaam defar këram gi mag ngi ne fi di tër bi yow mbooloo mi di ko dégg wet gu nekk kere bi mu wàccee ci béréb bii ñenn ñi jàppoon nañ ne buur la bu am doole rek wala sëriñ bu bëgg a note bëgg a nunguy suuf bëgg a nunguy mbooloo ñenn ñi ak fiir dal leen ci ñu ne ñu mel nii not nit ñi nungu seen alal képp ba leen tax a jóg te sañ Tuba àdduna tax ko woon a jóg loola yi da koy confirmeel mooy bi fi sëñ Tuba nekkee mars avril mois de mais buur ba Jolof di sàmbalaw ba pend jébbalu ci Cheikh Amadou Bamba foofu it danga nga cay ne bi tubaab yi reetalee réew mi ñi ëpp ci doomi wuur yi dañoo daw laqatu ji ci ginnaaw Cheikh Amadou Bamba moo tax bi sambalaw ba pende jébbalu ci sëriñ bi muy buur ba jolof am na lu jur waaye bokk yi loolu sambalaw ba buur pouvoir bi mu amoon ak daraje ji mu amoon jébbal boppam sëriñ Touba ba noppi sàkku ci sëriñ bi sëñ bi dénk ko dénkaaneb sëriñ Touba boobu ci Mbakke yi warees na fu nekk ñu di ko jàngale ci képp ku yilif nit ku yilif nit ak ki ñu yilif ak gépp kilifa gu buur jox boppam la nga ko war a wax xam nga sëñ Tuubaa bu Sàmba Lawbe Penda jébbuluwul ci moom ñu koy wooyee buur ba Jolof mu nekk ci suufam sëñ bi di ko neexal wala mu di ko naqaral sëñ bi di ko xamal ne lii nga yor ci ay loxo la bàyyi ko ñëw fi yow te balaa yàgg dana jóge ci say loxo dem ci yeneen loxo adduna dalay bégloo tey bu ëllëgee mu jooy la kon nag bu mu la wor ci reeloo gim lay reeloo te lii ne ci say loxo kat ci ay way dee yu jiitu woon la la bàyyi ko na ko sàmbalaw bi àdduna day ànd ak yow xeex nit bis àdduna ànd aku nit xeex la kon dimbaleel way ñàkk yi ak way néew doole yi te mooy tëddiku tooñ ndax man zalima nadima man jaar a baar loolu ko Sëriñ Tuubaa ku tooñ dana ko dana ko dana ko rëccu te ku wàcc fa nga waroon a jaar danga xam ne waroo faa wàcc na ko ndénkaan lii boo ko déggee dana la jariñ boo ko déggul nag wala kon ku nekk na seet na muy def mu dexe ko xoola bii buur li ko suñ Tuubaa digal xoola kilifa gi di digle lim digle moo tax booy dégg ñu naan amuñu lu ñu war a wax lu ñu war a wax am na fi ndax li suñ Tuubaa bind kenn mënta wax lu ñu toll kenn mënta wax lu ko gën a rëy fi ne ko war a dénk buur li sëñ Tuubaa bind ñu war koo wax buur a ngi fi ko war a dénk baadoola li ñu la war a dénk ngi fi ko war a dénkub taalibe li ñu war a dénk ngi fi kon war a dénkub sëriñ it lu ñu la war a dénk ngi fi ndax sëñ Tuubaa bàyyiwu fi loo xam ne dañuy jaaxle naan sëñ bi wax koon ba la ñuy wax ak kii amu ci waxi ko war a wax la sëñ bi dénkoon sàmbalaw bi loola ba mu amee mois de mai juin juillet tubaab bi convoqué ci sëriñ si na nga xam ne jébbalug Sàmba Lawbe googu andi na jafe-jafe ci yenn ci góor nóor yi meree Sàmba Lawbe ba noppi merewaale sëriñ bi looloo tax leetar yooyu jog ñëwoon ci mois de juillet sëñ Touba jotul bataaxalam kenn joxul sëñ Touba leetaram te ñàkkul convocation bi bi ci sëñ Touba jotu it yemuñu ci ñàkk koo jox waaye dañ caa boole tuumal ko ca góor nóor na ko du la boo ko wooyee du la wuy si baa bu la wuysee it li nga bëgg du ko def li ngay waxit du ko def loolu kon moo waral bi coow li bare Serigne tubaab tànn maam na borom daru yabal ko na ko ñëwal demal ma ndar bind ko leetaram bu doy waar boobee mi ngi bàyyi ko ci jaam bii ñuy wax Abdullahi di liggéey Rasulullah sallallahu alayhi jëm ci amiru ndar na ko bul déglu rambaaj yi ak fenkat yi ak yàqkat yi man du ma kenn ku dul jaam buy jaamu yàlla di ko jaare ci su yonente bi sallallahu alayhi li nga bëgg ci àdduna awma ci soxla li ma bëgg ci yàlla mënoo ci dara baal naa la baal naa ku la wër wasalaamu ala man kon loolu day mel ni confirmer na li taxoon sëñ bi jóg waaye xamal na nag bi ndaw liy dem fekk na tubaab bi booba préparé na benn armée boo xam ne war nañoo jël Serigne Touba ndax Leclerc mooy góornóoru luga merle nekk góornóor bu Ndar Jean-Louis Moutet nekk góornóoru AOF Merlin ak Leclerc ñu noonu woon Serigne Touba ñu ko noonu woon lañ loola ba mu amee ñu tànn seen. armée ba soldaar ya jiital gouverneur Leclerc na ko dem leen jëli Ahmadou Bamba mbakki Bari ordre bi mooy jëli leen Ahmadou Bamba Mbakke Bari boo leen demee moo tax suuf su mbakki Bari suuf su am worma la suuf soo xam ne da ngay settantal xam nga bu fekkoon ne dañuy ñëw naan fii la tubaab bi fekkoon sëñ tubaab jëlee ko fi waaye déedéet xoolal ni yàlla sengee béréb bi sëñ tubaab tànn tubaab bi jël si wut sëriñ bi xam nga noonu yaa ko génne Mbakke Bari moom waxut noonu a génne de xaraj tu la génn naa kon moom moo génne boppam bisub keroog la daam rañaane baari fajare gaaw ba maxar labraari léegi bokk yi dem nañ ci tubaab bi takk ab xare ku mat a mu faat la fi kin fi mujj téye téye nañ ko ba takkusaan ca waalo ci ajjuma 9 août door a joxe 10 août jëli leen Ahmadou Bamba taal leen dëkk ba rey leen dong yi jàpp leen sëñ bi indi benn muy dund baa mu ñàkk bakkanam nga gise ci ni Serigne Touba nuróolee yonent bi sallallahu alayhi ay mbir keroog bi yonent bi guddi gi waa Makka takkatoo ci war koo coup d'état ñëpp ñëw cawadoo ko ay jees guddi googu la yàlla jox yonent bi sallallahu alayhi wa ndigal na ko bàyyikool Makka dem Madinatul Munawwara bokk yi ajjuma ji Seex Ahmadou Bamba mujj julle ci dëkk bii di mbakki Bari jàkkaam ji bu jullee fatu waaye xam ngeen ne 9 août 1895 di ajjumaam jooju jàng nañ léegi xasida gi xamitu man yaxsimuni min addaral min kulli cheytanin wa jinnin wa bachar waaye péncam mii booba mbooloo mi mag ñi egg nañ ci bari goo xam ne bu ñuy waxtu timis la ñuy tàmbali bay julli fajar kon mbooloo taxutoon sëñ Tuubaa jóg adduna taxutoon sëñ Tuubaa jóg mbooloo mu nekk fekk na sëriñ Tuubaa fii ci Jolof sëriñ bi ajjuma joju bim talifi qasidam gi yonenti mi lako imshi wala taxsha darar man nga dem yàlla sengena la arna la bu ragal ben lor ma am bu wor na ma ngi sante yàlla mima ar sengema muccel ma ci loru jinne ak shaytan waye ci bir xasida gi ya barru kun wala tukhjilni dunya wa ukhra wa tajawaz anni yow yàlla nang ma nekkal rek bul ma gatchel mukk kon engagé na lu rëy waaye jàkka jii ñu toog tey jii jàkka jii ñu ne ci kanamam ajjuma ji sëñ Tuubaa mujj julli gee nga xam ne bu ma saa julli ba fatu ba mu jullee gee ba noppi daal càpp na ci buntu jàkka ji di waxtaan ak mag ñi mag ñi góoru pénc mi ba fees dal na neram muy waxtaan ak ñoom gaa yu baax ya gaa yu baax ya seen bis ya gaa yu baax ya seen bis ya ba egg ci waxal boppam ne sama borom dafay indi yan boo xam ne ku ko mas na jàkk yan ba rombut sa yóom na yan boobee man abanu danaa ne ko dënkul ba ñëpp di ko seen loolu la signé fii fii la ko wax muy yan man yanoon xut bu yàgg ab daaliya te attanun ko yaa ko raw yanu raw gaaña mu mu julli fatu fekk ma nga ca wàccaayam maam na nga ca yoon way ñu rox di ñëw nasaraan baa ngi campé gi jeewal ndax campement la na nañ xaar dina fi pexe pour bu gaawoo bu sëñ bi ñëwut ñu songu dëkk bi Sëriñ Tuubaa julli fajar ci jàkkaam ji di xaar ndaw li mu yónnee woon ak si di Cheikh Ibrahim ba mu agsee mu lëngu ko jëm ci kër gi jot ndigal lu bàyyi ko ci Jibril mu ne cëpp ci kanamam na ko sa boroom ne na tabbi ci kër gi xaraam na mu tudd boroomam laa ilaha illallah muhammadun arsalahu lillahu na gisul taxaw pencam maa ngi nii na nañ ma takkal ñu andil ko naaw naaru góoru tudd awnullahi gaal yi ñu dajji jaarale ko ci ginnaaw gaal yi wër ko mu boole jëlla bi xaftaan yi takk kaala yi jalaal jeeg jamaal ji wër ko wet ku nekk xaal ji wër ko wu ne njaboot gi wër ko fenn fu nekk mu boole fit boole ngor ga boole njàmbaar ga boole dëgër ga fii fi Mbacke Bari mu waxtaan ak maam Thierno borom daaru ak Cheikh Mamadou Moussa ak Cheikh Mamadou Fadal woowaat Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Mamadou Moussa waxtaan ak ñoom dénk leen lu dal seenum xel ci lu wóor ci lii muy bëgg a def dara du ko bejj fii la takk yor-yor bu dëgër awnullahi ñu teg ca malaanum sooy dégal dégal yi ci teg gi dafa wex tal mom serigne bi nga xamne bi mu takke ba yéeg war Cheikh Mamadou Lamine bara mom Cheikh Mamadou mom serigne Fallu netti nako ko nee yegge lan la ko suñ borom wax Ahmadou lo bëgg ma defal lako ko mu ne bëgg na lépp bam ne 10 mu ne jox na la lépp fi la takke Cheikh ibrahim Diop almachar da koo nettali xarajta min jolafin lillahi fi safarin akrim bihi safaran qad xaasa kulla yeddi xarajta fi sabti في شهر ربيع الضحى بجيسة ولجاول جئت ليس ذلي بكوك قلت وجئت بعض اللغة وفي سفينة البر قد سافرت سادد لقد أقمت بندر حين تسير بها داء الضلال من أهل الشك والفند ثم ارتهرت جهارا في سفينتها تنهون دكار بإسم المؤمن الأبد كان كريلو مو جن في واحنا قرأت يوم السبت ثامن عشر لخدمة المختار في شهر سفر باي في نجابوتم شيخ محمد الفاضل شيخ محمد المصطفى انا شيخ محمد الامين انا سونا سونا مريم كنت انا شيخ انا سونا فاتيجا نجابوتم جيب يون من غرام كارلا جوكال بشيرن بروفتي دينك كونيتي بات شيرن ريك نغا مون ريك نغا غوري ريك نغا ام جوم gis nga serigne touba bima woné ginnaw genn dem ci liggéeyam ba keurum bakki bari gi biñ koy tal dañ ay loo ak i mbaam ak i fas sëf ca bagaas yi Serigne Touba yi ak njabootu Serigne Touba bi Serigne Touba waxoon nan fal yakun ayal fi Touba in amkana wa illa fi ay makan insha allah bu fekkee jàpp jàppandi na nañ dem dëkki Touba bu Touba jàppandi lu bëre bu soob yàlla laxasaa aw nii wax na dal ladi xat zanani asira xayru lasi yu yastirul asira ki réer dëgg mooy ki ma jàppee koon jàpp man duma ma kon jàpp may ki yombal lu jafe ana mu tey ana maami ana maami ñi ñii ne woon dañuy jàpp sëñ Tuubaa ana seeni ana seeni sëpp sëñ Cheikh ummee nga ne sori wut de sëñ looy bàyyi moo ko fekkee woon ñoom la sëñ tubaa wooluwaat ne sëñ Cheikh joreel mi nettaliwaat na ma ko sëñ bi dem na ba sori taxaw wooluwaat sëñ Mourou Moussa ak sëriñ Fadul ne leen feral leen seeni rongoñ te muñ danaa dem danaa dellusi sama liggéey bii da ngeen ma liggéeyal Touba jumaa ju ju nekk ca Touba ju mel nii sëñ Fallou ak sëñ Modou Moussa gis nañ jumaa ji te booba jumaa ji amagut ñu am am dëgër tol noonu am dal tol noonu am ngor tol noonu moo ne ginnaaw tey nga ne boo nee sëñ Cheikh Oumy ne sëñ Fallou moom baayam moo moo ko fekkee woon loolu soreetut ana ñu tey gendarme saa ngi nii di escorter setam góor noor ku soxla nangam yàlla fay na sëriñ Touba. fii la génne woon 10 août 1895 noonu yi jàpp ne kii nu génne duutu jël si mukk mu ne leen ki réer mooy ki ma jàppee kun jàpp man ki yombal lu jafe la kon dëkk bi di Mbacke Bari béréb la boo xam ne ku xam histoire am da nga xam ne ku fi teg sa tànk am nga loo war a yëg fii la Serigne Touba génne 10 août moo tax am nañ histoire réelle yu nu war a li nit ñi ndaw ñi xam ko waruñoo jëggaani amul benn bañkat wala benn njambaar. wala genn gor gu mel nii Serigne Touba mel takku taxasaayu dem liggéey yi bàyyi sa njaboot bokk yi ana asiiru xusuur yi xalat wal ahlu an yi tafaaraxat li matixi ladi anhul madiyu xasiiru sama kër yëpp gent mbakke bari dañ koo taal lekk laa joxe ordre bu kenn dëkk Touba mu ne sama kër yëpp gent na xusuur yi xalat wal ahlu an yi tafaaraxat sama njaboot yépp laa tàggool lan moo ma yóbbee loolu li maddaxi ladi anhul mad yu xasiiru rasulullaay képp lay liggéeyal te lu ma ko kañ mu gàtt te bala maa bàyyi daa jot kookoo bàyyi ko ci dëkk bii dem ba dellu si waat bokk yi serofot amul benn tâche ku nuy jàngal wala nga nuy fàttali wala nga nuy joxañ danga nuy fàttali joxañ ñu Sëriñ Tuubaa te nun nag mënunoo warunoo am ñak fayda gu tolni am mbeur mo xamne mo moo daan te amul defet du njëlloo du kat epi kum daan day leer nañ ñu ragal wax victoire am di wut victoire yeneen yenen diko weng wengal duñ ko def señ tuba amul morom fi la tay xana doone murid di fi ñi waxtane fu mu doon ñu ne la Mbàkke bari ñu ne lu xew ga gis table ba mu ne fang ñu def 1895 señ bi takke fi dajek tuba bi jewal dem Ndar dem dakaru, dem ci geej gi ba wat ñu taxaw di fete victoire bob wara wax jalo rem waaye kam fi bàyyi woon muy Cheikh Abdoul Fadal wanoon ko liggéey bi ak melaw yi tey jii moo la dëkk bi moo na ko wonaat 1895 ba 63 Alaaji Fallu Bakki ñëwaat génnewaat fu fi màndarga nekkoon buntu kër beeg jàkka jeeg néeg bi fii la woon ak lépp waaye dénk ko ko doy te wóolu ko muy Serigne Cheikh Thioro Murid Sadiq koo xam ne tey jii nii Mbacke Bari mel lépp. ñoom xamoon nañ ne dana mel nu dëkk di mel waaye mu muñoon nañ ko taxaar nañ mbakki bari nag du caageenu kum neex def ca wala kum neex taxawee ca yëfi Sëriñ Tuubaa la yoo xam ne ku sëñ bi nam ma dimbale moo lay may nga mën caa jëf fi ne bari na murit yoo xam ne Mbàkke bari tout près mosuñu fee jaar xamuñu ko sax màggal gi moom mu ne su ko tudd te doo tudd Mbàkke bari fi ne daanaka lépp màggal gi fii la war a tàmbalee fii ndax mooy Mbàkke bari fii la sëñ bi wootee fii la sëñ bi laxase dem ci liggéey bi mu liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam loola fexe woon nag ba bisub tey bii njabootu Serigne Cheikh Thioro di dundal loolu Serigne Cheikh a ngi nii njabootu Cheikh Amadou Fadal yoonu murit tey jii nii dëkk bi mel li fi Serigne Touba bàyyi ko woon dem liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi moo tax sunu ndawi réew moo tax suñu ndawi jamono moo tax suñu ndawi yoon ñun ñëkkuñu référence ñëkkuñu delluwaay ñëkkuñu royteef nanu dellu ci Cheikh Amadou Bamba te roy Cheikh Bamba te warmaal ñoñam mbaggar leen warmaal ak njabootam bokk yi dama ne bis bii bi fi sëñ Tuubaa léegi la nga dégg ñu ne keroog bañ takkee xare sàngam dàq góor ña jàpp jigéen ña génn ndaw ña muy métti tey da nga naan sëñ Cheikh Oumy mais sa bàyyi bi sëñ Tuubaa di dem fi la ko bàyyi mu toll ci juróom-ñaar juróom-ñeenti at nekk a tànk Cheikh Mamadou Lamine Bara toll ci juróomi at njabootam gépp ne fi mu ba leen fi dem te moo ne bi añ bi ñëwee de kenn ku sédduwul ci añub sëriñ Tuubaa bi amul ndax ijaru yi ila qawmi saadatana wal takfina yowma jamal khalq niran motax tax seigne touba di juru giro, du jeex ndab seigne touba di 1895 2023 Mbàkke Bari mel ni. ñu ne fi la seigne touba joge won nga man fe tok di netli njabot gi tok te kersa dula dal te bari na histoire boy netli des koy teug diko rafetal diko defar waye lay deug ba kuko wax ña ngay waxal juk ay seigne touba nak amul lan lokoy netil seug wala nga am ci kersa kon yàlla nu yàlla fayal Serigne Cheikh Thioro yàlla nu yàlla fayal Cheikh Mamadou Fadal mi nga xamne jàngal nañu serigne touba ci wet gu nek kon mouride yi nañ gëna bàyyi xel dëkk bi di Mbacke Bari nañ gëna bàyyi dëkk bi xel bu baax muy Mbacke Bari fi la Serigne Touba bàyyi ko woon tay ji bo tege sa tànk ci dëkk bi bokk yi bu serigne Touba demone dellusiwul fu ñu koy waxe fuñuy magalé fuñuy magalé bu fekkone Serigne Touba dem na ben gak am wala ben tas waye suufu su bari na Cheikh Amadou bam ndax fi la taggo dem delu ci wat jumaam nopi 1963 Cheikh Amadou Fadal ñëw yeesalaatu dëkkam kon ay naalame ki bëgg-bëggam egg na ko bëgge won amé na ko kon njabor gi yalla yalla gën leena degeural muy njaboru Serigne Cheikh Absa te muy Serigne Cheikh ñi ci bokku ñep Serigne Touba de won na Serigne Cheikh Absa lutax kenn ku bokk ci moom ku nekk xam ne bu dee taalibi la Serigne Touba ko ko seereeloon bu dee nangu la Serigne ko ko seereeloon ndax Serigne Touba moo ne woon moom de dafay indi rek waaye du fi jëlee loolu nag ku ko Serigne Touba seereel ci pas-pas te mu amoon war ma ju toll ni bu ñëwee njéeréem ci kër Serigne tubaa bu ko gisut it kum njëkk yam ca mag ñam wóolu te seq koog yow la muy joxe mën na la koo jox delluwaat ci fam mu nekkoon te bokk ak Serigne bi sëñ Mbàkke moo doon tasali jaay la mu bokk ak moom lépp jënde ko taalibi gis nga taalibi googu ñu bëgg a daj bëgg koo dàq bëgg koo dindi bu ñu del taalibee tax Serigne Cheikh joreel mais toog fee taalibee taxoon tey Serigne Cheikh Coro Cheikh Mamadou Fadal bàyyi ko ci dëkk bi mu jaay lam bokk ak moom lépp ci ab juddoom jaay lam bokk ak moom lépp ci xam-xamam jël boppam jox ko Cheikh Mamadou Fadal di bi yow di liggéey ba am cër yu dul jeex te amoon yi cër ca ca waajuram ak i melokaan yu yaatu yooyu kon nag ku yàlla dimbalee ba nga am lu mel noonu na nga ko fonk bokk yi bu kenn sansi suñu gëm-gëm bunu kenn soppi ci ay wax bunu kenn dindi ci taalibe ak taalibe bu mënoon a ñàkk sëñ Fallu du wax sëñ Touba ya yaa ayoo nafis al murtaja ya fatihan ma kana qabl murtaja biatu bunu wati bil irada lakum likay kay bi kharqada min ba'd ma saraytumuha minni fa inni ahdaytuha lakum bi ghayri man sëriñ Fadilu mo ne sëriñ Touba yow sang bu ganjere bi sang bu riche bi ku cher ki jama bu mag bi koy yaakaaru gi koo xam ne la tëj woon ñëpp yaa ko tijji bis ni ki tey man Mouhamadul faadal maa jaay li dox sama diggante yow di njureel jënde kook taalibe bi nga ko jëndee ba noppi maa moom sama njëkk maa jëlaat njëg gi jébbal la ko yow Serigne Touba addiyee bi xëyri man ni kon loolu Serigne Fadilu yone na liy tax a jariñu bokk na ci Serigne Touba jaay ko jënde kook taalibe kon ak taalibe mooy li am solo bokk yi ak taalibe kenn du ko kooj kenn du ko rax bala ngaa jàngale lépp Serigne di mel da xam ni sarti taalibe di ba noppi ak taalibe moo am solo lu fi taxaw te samp fi te dëgër fi ak taalibe ko waral te ab taalibe lu mën a ne te jaarul ci ndigal du jariñu sëñ Mbay Jaxate nee na lu dul ndigal amul njariñ mbokk yi képp ku yaakaar sëriñ tuuba fekkal fii sëñ Gana Messere neexal ko ndax kat kii sagub sëriñ Touba la ci yoon wi jëmm ji maanaam soldaarub sëriñ Touba la dama bëgg kenn ku ci nekk fa nga ne ngeen dajaleel ko addee jox ko addee Serigne Touba ñu neexale ko ko bisimilah. Cheikh wax nga dëgg ñu dajale addee ji ñëw moom nga fekk sax Serigne bi soññee na ñëpp ñëw andi addee Serigne Touba ndax sëñ nga ne kat wax nañu lu am solo tey jii ci Seexul Xaddim te xam ni fii la léppee. Serigne Cheikh Thioro yàlla na yàlla dolli leeram jërëjëf li am na solo lool Cheikh Mamadou Fadal. nan ko jox jokkalante mu ñëw ñu jox ko àddi Serigne Touba jar na ko de. ndigal la lu jóge ci sëriñ bi aco bismillah jërëjëf béréb bi maa ngi koy wax léegi ci biir deux mille trois jàpp deux mille quatre laa fi tàmbali ñëw di gëstu si Mbacké Bari waaye jëm ji ñu fi fekk waxtu wu ne muy Serigne Cheikh Jorel ak njabootam gi bëgg nit ñi jariñoo béréb bi moo tax waxtu wu ne mu ñuy wone li fi ne ci ngeenel ndax bo diggé ñu ne la néeg bi la Serigne Touba joggé won xasida gim talifon ci néeg bi la ko talifé muy hamidou man yahsin min daral jeexintal bu gëna wóor loolu amut kon bokk yi nan delu ci sam li fi serigne bi bàyyi ta dox ci ak talibé loolu rek nuy jariñ ne amul lu fi bes lu ñuy wax amul topé ak jëfe ndigal ak bàyyi tere moy jariñ ab mouride lu waay nekk te nekku ci loolu da nga ko rëccu bu la kenn soppi ci aw doxin wu mat te moo di ak taalibe la cay sa yoon nekkul nag nga man lu ca kon noo ngi leen di sant di leen gërëm di lancé waat wax ne bokk yi nañ gën a bàyyi xel Mbacké Bari nañ gën a bàyyi xel Mbacké Bari amul benn béréb bu gën a yella defar nit ki Mbacké Bari amut benn béréb bu gën a yella nit ki defar Mbakke yi amul ndax fii la sëñ Tuubaa jóge dem ci liggéeyub géej gi sëñ Tuubaa fu jaar julli fa tisbaar ña ngi koy defar fu mu naafila ña ngi koy defar fu mu jàpp ña ngi koy defar fu nangam fu nangam fu nangam te léegi-léegi am na foofu sax man ngaa bañ a am lu la wóor waaye tey boo ñëwoon sëñ Cheikh Joral mii ñu ne la sëñ Cheikh Coro yi way juróom fal lu ko joxoon dëkk bi lii la ko waxoon sëñ Fallu bi sëñ Tuubaa di tàggoo mi ngi fi lu gën a wóor loolu dafa amul dëkk bi moom murit bu am pas tey dox na fexe ba xam ne jëfam ci mbakki baari ah sa bopp nga ko defal defaloo ko kenn ku dul sa jëmm defaloo ko kenn ku dul sa bopp kon nangeen ma balaq ci jataay bi xaj na lépp lu ci ni jataay bi demee la ci kilifa yi ci toogaay bi te ñu bañ a xaabaabal ndax kilifa yi jox leen cër ba ñu moom ak war ma jooju waral na ko kon na ngeen ma balaq sëñ Cheikh Mbacke janoo ngi leen di sant bu baax di leen di leen gërëm leen gërëm sëriñ Cheikh Sarr euh, jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ngeen bal noq noo ngi gën a feddlu sunu kóllëre ak njabootu Serigne Cheikh Thioro njabootu Serigne ab sa jërë ngeen jëf Baye Serigne ñoo ngi leen di sant sëñ Cheikh Thioro yow it jëf noo ngi leen di sant di leen ñaanal am sëriñ sant nañ suñu xol sedd na asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Gane la jëf lu ñu doon séentu ci waxtaan wi rek gis na ko at mu jot nii nga koy defee kon nag yàlla na fi yàgg ñëw yàgg fa fekk sëñ Cheikh Thioro ak bokk yëpp sëñ Cheikh Oumy Mbacké ak bokk yëpp